Mouhamed maa ngi lay ziar. mais yow ma foogoon ne yaa ngi fële yàlla yàlla nangu. mais tey en tant que sénégalais en tant que ancien roi des arènes président de la république defal la lii jaar la ko ci Matar Ba ministre des sports yëgi nga ci am Mouhamed. waaw sant yàlla rek julli si yonent yàlla Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam gërëm suñu waajur ak suñu sëriñ Maolana Cheikh Ibrahima. di am contentement trop di ci décoration bi comme ni nga ko waxee.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 incha allah ci 2020 bi dinañ ko génnee pour askan bi xam nga parce que c'est vrai que làmb ji coow li bëri na eh, problème yi bëri na mais solution waxaguñ ko te incha allah 2020 dinañ génne solution yi. solution dina am 2000. <laughs> waaw incha allah.